ndox mii ndox mii donc daaw beneen daaw jéeg beneen ngi fi taa xasoo xun borom kër yi jàmbar nañ ko di jàmbar nañ bëccëg tey nag ñu am naqar am jaaxle ci suñu askan ndax dañoo gis loo xam ne jàppoon nañ ni jeex na ci àdduna bi te ñu di ko gis fii mu nuru injustice li ko waral mooy kenn ku nekk xam na ne réseau assainissement bi jaar fii Kër Ñang jóge ci bassin de retation bi nekk Kër Ñang dem Daaru Rahman waa ONAS laay interpellé directement ne leen lii na ñëw saafara ko wala buñ ko lu ñu fi gis bu ëllëgee ñoo ko def seen bopp. bala ñu ko def nag dinañ alerte kilifa yi fi nekk di ci jiital monsieur maire de la ville de Touba di ci teg conseil municipal yëpp ak euh, commission bi nga xam ne ñoom ñoo jiite assainissement bi ci maire bi ne leen lii nañ ci taxaw nañ ci wax. tey jii nag xam naa lii moom dañ ne tey jii sax. la ñuy taxaw di ko wax waaye yaakaar naa ne yàgg nañ koo wax ndax lii ca pénc ma lañ ko njëkkee woon lu jiitu ca pénc ma sax maanaam jëmmi miiru ndox mi miiru ndox mi ci jëm boppam moo njëkk a yàqu maanaam la wër canal ba lépp nekk kër yoo xam si nii tey dañoo indoone dugg ci biir biir biir biir biir biir biir ndox mi loolu moo gënañ a nekk lu gën a ñaawati te loolee commune bi gis na ko ñi nga xam ne ñoo responsabilité lii gis nañ ko moo tax tey bi ñu naan commune bi nee na wala laat nee na man du ma d'accord laaj li muy wax c'est te li ñu fa tax taxaw tey mooy ndox mi ci suñu ginnaaw euh, nga xam ne ndox mu bon la ndox mu xeeñ. par exemple bassin de rétention bi nga xam ne moom moo nekk Kër Ñang ndax bassin de rétention bi moom mu ngi vidé ji ba Daaru man te boo xoolee Kër Ñang amul benn kër boo xamante ne ni bénéficié wu. kenn xam fu ndox mi jugee ñu yor ay xale yu ndaw teg ci xale yi fuñ jaar danañ dugg ci ndox mi ndax dañuy jàngi heure bu ñuy ci ndox mi la jaar amuñu feneen fuñ jaar ndax ci diggu trente la ndox mi di versé benn genre baaj lañ def fii ci diggu trente bi ñuy xeli ndox mu bon ndox moom lañ bëgg mu jugee lii ñuy wax corona corona lii moo raw corona lii mën naa indi maamu corona ndox mi lañ bëgg mu jug lii nekkul am ndoxum kese am ndox la moo xam ne nii dafa ànd ak ay ay cabinet lu ne la àndal kon réseau bi dañ cee branché ay fonds bu fekkee ay fonds moo ko tax a jóg waa Kër Niang nañ ci branché la seen i fonds ah mais defuñu ko ah ah lii ay fonds lañ ci branché la ci biir dëkk ba nañ arrêté loolu parce que bis bu ñu demee ba di ko débouché dañuy ñëw ubbi kanaal bi ne dañ koy bu buñ koy débouché nag ndox moomu day verse ci buntu këri jàmbur ak ci biir këri jàmbur yi ñuy wax maire bi monsieur le maire ne ko na leen wax ne leen na ñëw defar ko daar daar parce que dañ ko ubbi di ko débouché ndox maa ngi nii di verse ci biir kër nit mënu fee noyyi nit mënu fee def dara te lii mun na fee indi beneen loraanga boo xam ne nii bañoon na am assainissement sax moo ko gën ah buñ ne dañoo am assainissement nag ba pare assainissement bi di xaj le wala muy defaral ñee di yàqal ñi loolu yaakaar naa ne taxul président Macky Sall mi doon def def lii parce que dafa yëkkati milliards yu bari def ko ci dëkk bi ñu def grande diamètre kon waroon nañoo mën a def entretien yoo xam ne nii kenn du ubbi lii muy lor ab jàmbur wala muy lool keneen. li mi nekk tey boo fi jaaree nawet oto dootu fi jaar ñaareel bi ci topp mooy fii bi ñu ne dañuy defaraat tali bii nga xam ne dañ ne tali bi def ci 30 bi dañ koo xoosaat suuf si fi nekkoon yëpp jaay nañu ko xamu nañu ko def. waaye benn suuf boo xam ne lépp lañ fàkk yóbbu ko tey jii ñu jëlaat lii bañ ne leen dootoo leen ko ubbee ca penc ma ñu ñëw ubbiwaat ko fii léegi lii ñu fi indi ay fonds la dëkk bi yëpp xam ne ay fonds la ñuy wiideel fii ay fonds la ñuy wiideel te fond yaa ngi dégg ñii nga xam ne ñoo nekk suñuy conseil dem nañ taxaw ak ñoom wax ak ñoom loolu fa la fa la kàddu jote fa lañ ko fa lañ ko eggale képp kuñ war a dem rek dem nañ fa wax ak moom. ndox mi du ndoxam taw du ndoxam raxasit ndoxam foos la xam nga ni lii war naa jomb ci dëkk suufas Touba Mbacke sii. nawet bi bu ñëwee bu ko boolee ndoxu taw boobu noonu mën na fi andi ay yoo yoo xamante ni kenn du ko xam nuñ koy saafara te jàpp naa ne waa kër docteur xeexoon nañ fi li nga xamante ne moom mooy sibiru te kon tey jii lii ak euh, nuñ ko mën na saafara waa ONAS na ñëw saafara ko. tey jii tey laa la wax nii ci ndaje mi waxo ñoom woo nañ leen pour ñu teewee ko waaye ñoom ñëpp dañoo daw ñoom ñëpp dañoo daw nangu ñoo taxaw. li ñuy wax duñ ko sàmmante ni. Mm-hmm. liñ bëgg dajale ñu ñu leen di yuuxaloo jox leen seen suñu carte. di bind suñu kàddaante dem noppi nañ leen a gis suñu amee luñ naqari duñ leen mën a gis ba mën koo jooytu ci ñoom. bi lee amee est que dem ngeen kenn ci ñoom par exemple kenn ci ñoom. Uh-huh. ba lii amee ànd naa xale góor yi ñu jeunes yi. Uh-huh. dem ci chef de quartier bi chef de quartier bi yebal ñu ci. supérieur am waaw Baye Moussa Bey la ñu jox ñu numéro am. Uh-huh. ko mu jox ñu numéro Mbaye Mame ñaan Niang. ñu woo ko une fois jotuñu ko. chaque ngoon fii lay jaar gis na lii ump ko mais woo nañ ko ba sonn gisuñu ko mu mujj sonn bàyyi ñu trouvé benn solution hmm. jàpp benn àjjuma ñëw hmm. bale fii ba mu set jéem a sakk affaire bi fii fépp dañ koo tooñ woon mais jariñu ci dara ndox mi di gën a di verse bañ ko defee ba ca suba sax ndox mi génnaat di gën a génn tey ñu ñëw xëy koñ bi yëpp fees ndox mi di génn ba ci kaw kenn ma amul foo jaar. gi de moom métti na ñëpp kër gi. wet yéen ñi fi yéen sax xam ngeen ci dara gën na ci dëkk waaw guddi ak bëccëg